suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. di leen indi yeneen problème la jàlloon bul ko waxtaane bul xuloo bul nettali bul waxtaane li jàll bul xuloo bul nettali indi na jàmm yéen a ngi ci jàmm dund leen seen jàmm rek. man soo demee ci Masaalikul Jinaan bi sax ak Cheikh Amadou Bamba ma lay wax ne bala yàlla nattoo ak ñàkk bul toog di xalaat ñàkk gi. ku la yàlla nattoo ak ñàkk bul toog di xalaat sa ñàkk gi day bari tey tax nga bari ay njàqare rek ak fitna bu la nit tooñee bul toog di xalaat tooñaange soo demoon ba nar koo baal soo xalaatee tooñaange da nga naan kii kii li ma def duma ko bàyyi nii waay da ngay rek dem songe ko histoire seytaane am lim mu bëggoon naanal ndox mu sedd bu fekkee dangaa taxawoon tëddal da nga wax la hawla la quwwata illa billahi al aliyyil azim law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu l-mar'ata an tasjuda li zawjiha sallallahu alayhi wa sallam nee su ma doon dugal digal kenn muy sujootal kenn kon ma digal jigéen mu sujootal borom këram ma doon digal kenn mu sujootal kenn kon ma digal jigéen mu sujootal borom këram ah xam nga ne kan koo xam ne daanaka tuuti ñu sant la nga di ko sujootal ndax xam nga luy sujoot su jur juróom-ñaari yax moom koy def ñaari loxo ñaari baaraami tànk ñaari bëti wóom akub jëb li ma jublu mooy nga bañ a jaawale nga bañ a jaawale ñi nga xam ne dañuy fonk seeni way jur buñ leen joxee loxo ñu fóom loxo bi wala dañuy fonk seenub sëriñ buñ leen joxee loxo ñu fóom loxo bi loolu tuddul su ñun nag li ma ko waxee keroog ci invitation bi ma ne leen li ñuy def dañ ko tul tudde ni mu tudd lii ñuy def tuddul su jóot lii foon loxo taq bii lu yedd li tabaru ki foon loxo ngeen barkee loolu la tudd loolu doom sant nañ ko na koy defal bàyyi képp koo yaakaar ci moom barke it mën nga ko koy defal waaye koo yaakaarul ci moom barke xaram na nga defal ko képp koo xam ne kiit soo ko ko defalul mu naqari ko kooku it xaram na ñu defal ko loolu foog naa téere bi tudd ak aqrabul masalik dafa résumé téere Cheikh Khalil bi buntu bu di ko soo demee wax na ci même sëriñ Sooy bu Mbàkke téere boobu bind ci wolof wolofal soo demee moom it wax na ci sëriñ Sooy xam nga ne téere yooyu la topp di ko fii waaw su ma doon dugal digal kenn mu si jootal kenn ma digal jigéen mu si jootal borom këram alayhi salaam am na benn hadis boo xam ne jigéen bu faatoo fekk boroom këram gërëm ko suñu borom du ko mbugal dana ko jéggal tàbbal ko aljana wax naa gis ngeen xasida googu si Amadou Bamba taalif jëme ko ci diggante ñaari way dencante yi xasida googu mu jëme woon ci muritam boobu di mbokkam muy soxna Penda Diop <coughs> aleyki bi sabri wa taqwa rabbiki fii sirri wal jëri fa yaxfiral laki nee na ko dénk naa la yow soxna si del muñ dénk naa la ragal yàlla ci li nëbbu ak li feeñ soo ko defee yàlla jéggal gis nga nee na ko sant naa la del tuub sant naa la dell nëbbutu di làqutu ci amul bàmbali mu sant taalibe bu jigéen bi nee na bul def di sol sa col ka gën a ràññeeku dàkk mi digg mbedd ma di dox ki kenn dencagul sax tere nañ ko di manifesté wu ci digg mbedd yi ki am borom kër bañ denc ko nag moom kooku moom kenn waxaale kooku moom daf doon jaayo ba jar jaayatul boppam kenn la gën a rafet ci colam dañ ko ko sant mu di ko gàttandoo borom këram bu dee ñëw ci kër gi bu dee génn sax lañ ko waxoon muy sol la yama maay ay foog naa loolu neexu neexut a wax fii ci Sénégal neexut wax de ndax daa mel na sax nag xew-xew yi ak dem moom moom la ñuy waajal complète yu bees yi waaye loolu it li am solo rek mooy yëg-yëg yëg-yëg bi soxna si di yëg yëg ni moom dafa war a am dignité am fulla ak fayda dafa war a xam mooy kan ba nga xam ne ku ko warta yàpp du ko war du ko yàpp ku ko warta jege du ko jege ku warta ku ko warta caaxaani du ko caaxaani yëg-yëg moom su xasee su xasee am ci moom rek baax na juróom ñaareelu tomb bi ci àq yi nga xam ne ameel nga ko yow soxna sa borom kër mooy na ko wattul alalam wattul ko ab deram na nga ko aaral alalam bul ko yàqal alalam na ko aaral ab deram yow soxna dangaa jege sa borom kër lu bari bu ko nit ñi bëggee xam ci yow la ñuy jaar fexeel bu bëgg xam ci moom dara bu mu jaar ci yow ba xam dara ci sa borom kër ak lu leen di wal fàtte ne Balaam ibnu Baora si ñun sëñ Tuubaa junj na ko ci Masaalikul Jinaan bi ana xasbuka a fi nusuusi min sha'ni maal fata barsisi wa sharnu Balaam allazi tabaxara ilman kawa zajara liman tadabbara bal aan yàlla Moussa la taseel jamono bi mu ñëwee Falastin fekk kan ànd yoon ñi ngi fii yonent yàlla Moussa bi muy xeex ñoom bal aan bokk ci kuréel bee moom yàlla may na ko lu mu ñaan yàlla nangu ko waaye bi ko banu Israil bëggee fexe ba mu ñaan yàlla wala kuréel bële fexe ba mu ñaan yàlla yonent yàlla Moussa mu të ci soxnaam lañ jaar neexul ko fukki ndab yu wurus ak fukki juróomi ndabi xaalis soxna see ko man ma ne ba tax mu dem di ñaan yàlla yonent yàlla Moussa ba ca la ala ko ca al amee alkale nag àq la joo ko ameel ko alalam aaral ko aaral ko deram bul génn ci kër gi lu dul ndigalam daa génn nga ne ah naa gaawantu dem doxi so doxi soxla sàngam ba lay ñëw ah loolu jigéen ju baax du ko def ko def da am bàkkaar bala ngay génn dem fenn tàggul sa borom kër ak lu mu sori sori jëlal téléphone woo ko damaa bëgg a dem barab sànq. sallallahu alayhi wa jigéen ñi gën ci jigéen ñi mooy ki nga xam ne boo ko xoolee bëgg boo digalee mu topp la boo ko xoolee bëgg tey koy waral soxna si moo koy waajal ci boppam kon moo da koy waajal ci ak colom ak defaroom ak mel na nga xam ne. sa boroom kër bu la xasee ba xool dootul gisati kenn ca mbedd moo xelam nekk ci moom loolu jigéen moo koy liggéeyal moo koy liggéeyal boppam bocc bokk na ci àq yi ida xibta annaha afisat fi nafsiha wa malik boo fàddoo nekku fi mu aar jëmmam ba ku ci warta jot bi ci jot ku ko warta gis du ko gis mu aaral la sa alal ba sa alal bu yàqu ñetteelu tomb bi mooy <clears throat> bu sa boroom kër di tukki bëgg nga ànd ak moom tukki bul ko wan genn diis diis damaa bëgg nga ànd ak man ci tukki bi àndal ak moom dem tukki loolu topp la goo xam ne warugar la wu tege ci yow ñeenteelu tomb bi mooy waxtu wala soxlaa bëgg a bànneexu ci sa jëmm nga jébbal ko sa bopp ndax loolu ni nga amee àq ci moom ci wet googu moom it noonu la amee àq ci yow sallallahu alayhi wa sallam nee na isa daa rajulu imraatu ila firaasi fa abat an tajiya fa baatu xat baana alayha la an na daal malaayikatu hatta tusbiha sallallahu alayhi wa sallam ne guddi jot na borom kër bi soxla soxnaam woo ko mu bañ borom këram fanaanee mer ndaw si ba ba muy xëy malaayika yi dañ koy fanaanee rëbb ko ñaan yàlla dara jaru ko dara dara dara jaru ko ndax ñaanu malaayika yàlla du ko delloo juróomeelu tomb bi mooy waxuñu weeru koor nag weeru koor bu agsee moom bu la sa borom kër ne bul waree dangay lànk woor weeru koor moom kenn du di digalal digalal kenn sa borom kër daa woor ak bañ a woor yëpp boo wóorul boo demee boo dee yàlla mbugal la bala yàlla di mbugal sa boroom kër mënut a téye loxol yàlla. weeru koor jot na sa borom kër bu wooree wooral ba wóorul wóor wooral waxtu julli jot na sa borom kër bu jullee jullit bu julliwul jullit. si ba Bamba wax na ko fii ba yoonu murit bi sof sof fekk booba weeru koor dafa jot ñuy woor am ca taalibe koo xam ne wóoru Sëñ Tuubaa woo ko ne ko demal woor mu woor ba ngoon jot suba jot ñu gis ko wóoru Sëñ Tuubaa ne nañ ko yeew ñu yeew ko ba ngoon jot Sëñ Tuubaa kenn jox ndogu ko ñu dégg ko mu naan ndogu ndogu Sëñ Tuubaa ne nañ ko jox ndogu bañ ko joxee mu ndogu Sëñ Tuubaa dafa leen a leneen muy julleeg war ak aj màkkaat lépp maag yéen la ko yàlla santaane sant de ak asaka ku ko deful tey danga ko def ëllëg loolu doyu doxul sama diggante yee yàlla mi ma ko sant moo leen ko sant suñ dee wax nag mooy kooru ngàtt nga weeru koor yi daa jeex nga nekk sa boroom kër rek foo toll di woor sa borom kër bu ko neexee mu ne la bul woor soo dëgëree bopp woor bu fekkee daf laa soxla sañ na laa imposé dagg sa koor loolu àqam na sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax de laa yahillu lil mar'ati an tasuuma wa zawjuha shahidun illaa bi isnihi sa borom kër tukkiwul demul fenn ngeen nekk ci kër gi amuloo droit woor te joxula ci ndigal waaw xam naa ne ni ko waxe woon nag ni ko sëriñ Badara waxe woon ngeen soxla ñaari tomb yoo xam ne bëgg bu nekk ñu laal ci gannaaw tomb boobu ñu mos ci beneen bu ne ngeen bëggoon ñu laal ci tomb masaahidu yowmal xiyaama dund ki bu demee ba jeex dundu àdduna gi bu demee ba jeex ana luy xew ana luy xew buñ demee ba dund gi jeex dund gi day amul kenn ci ñun ku sikki sàkk ne sa dund gii ngay dund dana am bis boo xam ne bii day jeex tàkk nga toxu fii bàyyi ñeneen ñu des fii dund loolu moom maanaam nit ku amul xel rek mooy xalaat ne day continuer nekk fii moom abada ñun ñii foog naa jafe nañ ci ñun ku gis ku gis sa maamu bàyyi si gën a bari kay sa maam ngay gis te bari na ci ñoo xam ne duñ gis seen maam am na ñoo xam ne sax seen ñoo gis seen bàyyi bari nañ ñuy dund ci réew mi ñoo xam ne ñu daatoon gane àdduna seen bàyyi génn na àdduna ñi ëpp ci ñooy gis mooy sa maam waaye dem ba gis sa maamu maam wóor na la leen fi jële moo la fiy jël kullu nafsin zaiqatul mawt so innamaa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaamati suñu borom nee na bépp bakkan dana mosi dee nee na kullu man alayha faanin wa yabqaa wajhu rabbika zul jalaali wal ikraam dund gi nag bu demee ba jeex <coughs> ñu jël ñu ku nekk ñu rob la ci sam ndax moomu nañu fay nekk nekkinoo mën naa neex mën naa naqari am na ci ñoo xam ne buñ leen robee bu faatu ñëwee rek ci xam xam te loo xam ne du ñu ba asraafil di ëf buftu delluwaat xamati duñ xëmmaliku lul asraafil ëf buftu bi ëfam ñaare am na ñoo xam ne leen robee ñu leen rob buñ leen waneen giraaw dañ naan ñokket duñu ci biir bàmmeel bi di new yi di toj bët yi mooy njëkk a xelliku gémmiñ gi cër yëpp di détaché wu ba bàyyi fi ay yax su ko defee jëmm jooju ruu gi day def ñokket tàmbali di wëndeelu ci malakoot su boobaa nit ki bu daawul wéet li ko yàlla wala lu ànd ci suñ borom dana wéet wéetaay woo xam ne kenn du la ko mën a misaal lu nekk dana ci jéem a làqatu ruu gi bëgg ko wéet te du am wéet su boobaa ruu yu tedd yu baax yi bu jëmm ci di génnee ci ruu gi génn ci jëmm yi balaa ñu laa robi di sang Seydina Jibril su boobaa sal sayaa il lay tudd dina jël ruu gi ànd ak ay malaayka ñuy bëtt asamaan su njëkk su ñaareel am na ruu yoo xam ne du ñu àgg aras am ruu yoo xam ne dañ dem ba arsu rahman suñ borom waxantee ñoom ñu sëg la nga dellu si fekk ñuy sang néew bi ruu gi day def tong di jàkkaarloog néew bi nit ku nekk bu sa ruu génne ci sa yaram sa ruu day détaché wu taxaw fële da ngay gis ñu lay sang diwal ngi nii diwal ngi nii da ngay dégg li xew ci kër gi li ñu wax lépp yaa ngi koy dégg waaye lu waral dootul yëngu ci biir yaram la doon yëngoo bu dee ruuxu aji gëm new yamb lay toll ko am gisul baatin su fi nekkee di ko gis bu dee ruux ku texee di <laughs> ne soccet soccet mooy di lekk mbay bi di wadd waddi noonu soccet ñu naan lay toll laa qadarullahu wala sama foofu bu ñu sangee ba noppi ruugaa ngi bu ñu ba laxas ruugi na tong ci kaw bopp bi ki koy jullee mi ngi gis diw sàng mi ngi may jullee bu ñu ne dugal ci paxum bàmmeel bi mu ne tong ci bopp bi waxtu woo xamee nii am na malaayka mu ñëw ruumaan moo njëkk a ñëw ne la bindal bindal loo defoon ci lu baax ak lu bon nga ne ana sama daa ñu ne la sa lor yi ci sa gémmiñ ana sama xalima ñu ne sa baaraam bi ngay binde ana sama fooy ñu ne la sa càngaay bi ñu la sànni mar sallallahu nee na seen néew yi dee leen nañu sànni càngaay lu jot ndax yére yi ngeen leen di sànni moom la ñuy dekke waala yombal ku la gën a jot jot koddaay bu dee dekk moo lay gën a jot jot koddaay malaayika moomu su la bind loo nga bind ni mu la ko waxee lu ngeen am benn problème soo bindee lu baax li nag bañ a bind lu bon li su boobaa la fitna di tàmbali ñu ngi yor mbolde boo xam ne bu ko dóoree nit ki dana rëcc ba daw ba dem ba ci ñeenteel bi suuf boo xam ne teg na ko mbolde boobu dana dana fit am fit na joo xam ne bu dee bi yéefar a tax ñuy wax foofu de ndax yéefar moom buñ ko binduloo du bind buñ ko laajee du tontu ko laajee lu muy lu muy wax laa adri xaw ma xaw ma xaw ma bu ko malaayika ma dóoree mbolde bi moom yéefar bi liñ lay laaj lu mu doon suñ tubaab téere yi mu ko wax bari na